mais seulement que bi ma gisee Serigne Saliou Gueye mi nga xamante ni def na 30 ans de carrière maa ngi koy au passage bu fekkee kooku lan mën a ne moom dafay def usurpation de fonction parce que yoru carte de la presse nationale. Mm-hmm. à plus forte raison man mi nga xamante ni samay 10 ans ma togul d'ici 4 d'ici d'ici 2 ans laay am 10 ans ci milieu bi. Mm-hmm. mais moment boobu noonu il fallait qu'on qu'on fasse une euh, la distingue euh, le distinguo mm-hmm. entre. Maty Sarr Niang ak Maty Sarr Niang citoyenne qui a des droits et qui avait vraiment des cris de cœur di ko di ko exprimer ci réseaux sociaux yi. Birama xam nga man la mooy sans problème gis naa fi journaliste yu bëri de de renom nag mm-hmm. ñoo xamante ni eh, ils étaient avec le pouvoir mais ñoom la moo tax ñoom kenn waxu leen yéen doo leen journaliste. mais pourquoi ñun ñi nga xamante ne on est là pour défendre les causes du bas peuple ñu ne que je le dis doomu baadoolee lan doon topp di ñoom lan doon topp di jàpp di tëj mais la moo tax ñun buñ dee buñ dee loolu noonu ñun ñu ne ñu ne carrément duñ journaliste ay ay opposant lan wala ay politiciens déguisés hmm. alors que ñi nekk avec le pouvoir di encaisser ay milliards bañ a fay seen a bañ a fay ba pare ñu ne ñun ñu ñooñu noonu ay journalistes lan quelle la différence violence. def combat combat la rek loolu yëpp est du politique bi ngeen bi ñuy jël dugal ko ci biir milieu journalisme bi doyen boobu tamit question boobu yaa ko moom. Euh, est-ce que loolu taxul indiwul lii tamit kii fii kii fii la far kii fii la far ba ba mu dem ba yéen corporation bi ñuy wax ci presse bi aussi mu dem ba kenn xàmmeetul kenn. mais mais Maria lan la ñuy wooyee. ñuy jéppee ñuy jéppi woon te quoi. mais mais mais Maria lan la ñuy wooyee politique ci biir ci biir kii nii parce que avant d'être avant d'être euh, nu mu tudd on est des citoyens. Bien donc bu nu waxee république. c'est euh, c'est le gouvernement du peuple mhm. par le peuple et pour, pour le peuple yow nga bokk ci peuple bi ba pare nga ne yow gestion état warula intéressé mooy démocratie ah man de wax dëgg yàlla man moom man man man man moom ko waaw man moom franchement non en fait bi yëpp Maria mu ngi jóge ci man su fekkee euh, damay wax lu baax ci pouvoir on pense que c'est normal en tant que journaliste mën naa waxal pouvoir am pouvoir lu baaxam ah. bind ko ci ay téere on pense que ça c'est très normal mais lorsque je suis hostile wala je suis contre wow. on dit qu'il l'opposition wala loo boo waxee ci opposition loo xam te ni c'est un peu favorable ñu ni tu joues tu joues le rôle de d'un acteur politique mais bu fekkee yow yaa ngi xalamal nguur c'est ok c'est ok